fës ci bopp xibaar yi dañu koy dooxee fële ca ginnaaw raay ak projet train express régional bii di TER di woy ba tey di jural ay jafe-jafe askan bu yeewoo foofu ñeel wàllum insécurité ak dëkkuwaay wàllum wér gu yaram wax ci coronavirus bi ginnaaw ba mu gane siwee fii ci Sénégal ak ñeenti cas askan bu yeewoo fii ci Yaraax di ci joxe seeni xalaat

amuñu dara pont bii metti na dañ naa la joxal jox ñu li nga yor wala nga tëb. insécurité bi léegi lañ ci jàpp saa tellement que koñ bi dafay dem ba dafay fragile. nañu dimbali daal nañu dimbali tumuraanke nanu daal sonn nanu jaaxle nanu tiit nanu. loolee la askan wi yeewoo fii ci Hann Parc 2 ci Yaraax te ñu gën leen xam ci ginnaaw raay di dund ginnaaw ba ñu fa jëlee kër ya fa nekkoon mu des fa rekk fukki kër ak ñaar. foo dëkk ba juddoo fa ba màggee ba yaroo fa ah ba war a am say projet réaliser sa live xam nga léegi yow un bon jour ñu ñëw ñu ne yow dañ lay jël délocaliser carrément nga daaxoor nga bañ a daaxoor yëpp da ngay dem ñu recenser waa koñ bi ñu recenser koñ bi yëpp ku nekk ñu nattal la sa kër xam nga ñu vérifier la xool sa état xool état kër gi nu mu mel xam évaluer ko def lépp ba nga xamante ni dañ naan léegi yow yow lii lañ lay fay xam nga ku nekk xam nga som ba nga xamante ni yow au moins yow moom ngay moom fayoo ba nit ñi commencé dem di wëri ay kër. waaw pour dem changer parce que xam nañu fii duñ fi yàgg. Mhm. ñu commencé di wëri kër xam nga nekk si ay problème soo naroon def dara sax da ngay sóoraale parce que doo xam ñoom kañ lañuy ñëw tu vois yenn affaire yu bëri daf lay bloqué mhm. waxal nañ ñun ba pare ba waxoon ne dañuy fay ñun depuis 2018 la ñu signé yàgg na depuis 2018 ñu ngi nekk nag di xaar di xaar di xaar di xaar ba ñoom à un moment donné ñu dem ba toog ne yéen léegi soxlaatuñ leen tu vois ñu dem ba léegi ñoom mu des 21 maisons ñu ne 21 maisons yooyu si des soxlaatuñ leen garaawul dañ koy bàyyi noonu déjà loolu c'est pas normal ñu ñëwaat si 21 maisons yooyu ñu dindiwaat si 6.

parmi 14 maisons yooyu dañu emplacé wu de telle sorte que même suñu leen fayee tamit ñu leen wër tant que fayu ñu leen duñu mun ñëw toj kër yooyu dañu nekk ci biir koñ bi quoi tu vois léegi mu des 12 maisons kese moo si des 12 maisons kese te 12 maisons xam nga ni loolu deful quartier. Mm-hmm. mais quartier bu fekkoon te ni dëkkuwaay la mais jàkk ji tojoon ko bër gi démb def naa ay jullit fu nu dëkk day am jàkk amul assainissement fa la ñuy tuur suñuy ndox. kon bu nee quartier la war doon kañ la kañ la doon kañ la koy doon defar nañ ba clôturer seen i miir taxawal seeni i pont ah pont baa ngi nii tout près mi ngi taxaw fii ñun dañuy dégg lu nekk liñ fa xewal mooy lan mooy que ni jox indi li nga yor mbala wala nga tëb indi li nga yore baa nga tëb mais ñun après ñooñ bu ñu sutul bu ñu sutul ku ñu def loolu fan lañ jëm si biir quartier bi lañ jëm mais bu ñu jëmee si quartier bi ñan ñoo fi nekk sama yaay ji moo fi nekk doon koo xam ne si jëm boppam euh, moo fi mag à part loolu si jëm boppam quartier maa fi mag te ma soixante-dix ans kon donc am na yoo xamante ni si jëm boppam bon dara desut fii dara desut fii ay xale yu man taxaw sax taxaw wax sax comme ça nii sax bëriwul bi nga ñëwee gisoo fi benn xale ay mbu caa buuj ñoo waaw kon donc daal ñun daal ñu si coono daal ñu ngi si coono ñu ngi si coono. amuñu làmp amuñu dara pont bii metti na dañ naa la joxal jox ñu li nga yor wala nga tëb te fii xam nga ni ku fi tëb da ngay dee ku tëb da dee li dund fii dafa metti dafa métti ba ci kanamu yàlla ñuy woon nag ñu ñu jàppale ñu te yàlla rek tax te xam ne ni lii ñuy dund ni métti na lu nekk da nga koy xoolee ni sa bopp lu nekk rek xoolee ko ni sa bopp nga natte ko ne man lii bu doon man la ak samay famille wala samay doom lan la ñuy dund dañoo yor ay xale ñi xale yi fi nekk ñi am ay juróomi at ay ñeenti at ci la ñuy te xale fa mu nekk day fo fii amuñu sécurité amuñu dara xoole xeer poussière bi ay mag fii ñaari ay mag ñu fii ay jigéen lañ dañu dimbali te yàlla rek tax ñu wax ñu ñun ci lan la ñu nekk ñu xool wax ñu dañuy dem wala ou dem ñu ñu xam ci lu ñu nekk ñu dund ci jàmm dund ci intimité parce que lii moom ku ko wax ak ku ko waxu yëpp xam nga ni li ñuy dund dafa metti à partir de 19 heures 18 heures maanaam la xale yi du dugg à partir de 19 heures ñemeetoo yónni sa doom ci boutique bi fii koñ bi moom amul boutique ñun boutique bi ñuy jëndee ji Maga Maris xam nga loolu metti na fa la ñuy jëndee ji ab 19h xasee jot xale yi dootuñu ñemee génn xale boo yónni mun la ñemewu ma fi bu dee xale yi ndaw ndawaan ñu ko ni mu ne dañ may sàcc ñemeetuñoo dem sàcc yi sonal ñu da ngay tëdd ñuy fëgg sa fenêtre doo nelaw guddi doo nelaw bëccëg xam nga metti na. imaginer boo tuflee ni muy mel comme boo xam sa xol yi ni muy mel en plus insécurité zéro sécurité bi moom man moo ma gën a nekk san problème parce que ay xale lañ yor. te goudi gi fook ñuy génn dem di jënd mais fii bu timis jotee boo fi ñëwee da ngay mel ni ku nekk si 3 heures du matin da ngay nelaw ba fàtte say bo des fois da ngay nelaw ba tiit si ay nelaw xool heure muy 2 heures fekk na yow doyal nga nelaw ndax rek teel a tëdd. Mbaxane Sall di conseil municipal di joxañ baaraamu tuuba nguuru Sénégal ndax lu nu mel liggéeyam la. li nga xam ne moo ma ñor en tant que conseil municipal ci mbir mi li nga xam ne moo ma ñor en tant que signataire de la plainte bi nga xam le collectif national des impacts du terre déposé na ko auprès de l'AFD et de la de la banque africaine de développement li ma ñor ci mbir mi mooy tumuranke bi nga xam ne jural nañ ko askan coono gi nga xam ne jural nañ ko askan et titange bi nga xam ne jural nañ ko askan loolu moo ma ci ñor te loolu en tant que élu local moom laay porter Informé dit le président de la République du Sénégal son excellence M. Macky Sall Si bu tu es président de la République da nga le projet bu day ni dugal ko ci askan wi ne sa pour Sénégal pour la postériorité Il y a lu le citoyen sénégalais le mieux informé yëg nga da voilà la vérité te waruloo nekk ci palais bi minute ay sénégalais nekk ci tumuranke coronavirus bi bi mu xewee ci réew mi ña nekk Wuhan mo treize sénégalais na mu indee coow ci réew mi ba ñu la interpellé la ne da ko war a faj noonu nga war a faje problème bi nga xam ne moom la terre bi jural askan wi loolu mooy dëgg dañu la fal nga ñuy administrer sunu réew ñu bokk réew mi nag yem ci képp ñu jël sunuy koppar dënk la ko pour nga séddale ko defar ci réew doo tabax réew nag di lor ay nit la vérité mooy nit ñi dañoo loru ci projet bi xëj na nit ñi duñ la ko wax directement parce que am na lu ñuy xaar dañuy xaar ay poste wala dañuy xaar nawet man li gën a am ci man si man solo mooy citoyen nga citoyen la ñoom ay citoyen la ñu jox nañ la sunu alalu réew pour nga diriger le Sénégal de façon démocratique Tay loolu boo def muy jural ay nit musiba yow président de la République yow voilà tu es interpellé au premier chef et sa way nak ñu ngi la koy jox parce que tu es le premier Sénégalais alors tu es une grandeur d'établissement loolu dañ koy respecté jox li ci cër Waye nak di la fàttali ñii ñu ngi ci tumuranke té du ñom rek ah il y a 1500 dossiers yu nekk sur la table boo xam AFD ak BAD war nañ ko saytuwaat pour problème yi am ci terre bi yëpp ñu faj ko. ginnaaw loolu nag askan yi fa yeewoo di ñaan walu jaarale ko ci autorité locale yi ngir li ñuy dund mën saafara. message bi ñuy lancé vraiment dañ koy lancé nguuru Sénégal bëgg Macky Sall ak ñi ñi nga xamante ñoom la séxal kuréel bi li ni mu yëg parce que xam naa ni ñàkk yëg moo waral lii nii quoi tuyaa bi am na seen directeur bi euh, comment dirais je Muntaga Muntaga si waaw moom tamit ñu ngi koy lancer message bi parce que ban waxee dañu ni bu ko yëgoon tey jii heure bi war na ñëw pour mën a régler situation boobu yëg na ko wala yëgu ko ñu ngi koy rappeler que mu ñëw dimbali suñu si ñun dimbali ni ñaan. suñuy loxo guddul suñu tànk guddul bon duñu brutaliser dara yéemu na taal wala nu tàngal wala nu ko parce que ay kilifa fi nekk ñun loolu jaraluñu ko euh, sunu yëpp nit ko moom bu fekkee da nga jël sa base jox ko sunu borom tabaraka wa taala dafa naa ni da nga koy bàyyi say mbir te moom lañ ko bàyyeel am na ñoo am na ñoo xamante ni nag jege si nu comme ñoom ñu baaxaan na consort ñëw noonu jege si nu pour que dina jëm fexe ah su ko réussi sa kaala bon ci kenn tamit waaw parce que yarax lañ bokk pour toujours ah parce bu ne ginnaaw raay tamit ginnaaw raay c'est yaraax euh, mairie war na man ñëw taxaw ci les députés Ndeye Fatou Diouf yëpp war na mën ñëw taxaw ci lu mel nii te xam ni suñu xeex seen xeex la parce que lii lépp ñoom ñoo waroon ñëw fi ñu waroon dem ñoo nu fa waroon demal li ñu waroon wax ñoo nu ko waroon waxal parce que tamit bu ma wax waxuma sax ni ñoo dëkkandu si dëkk bi waaye dafa naa ne ñoo fi màggandoo yarandoo fi kon lii buñ ko déggee wala nu ñàkk ko dégg ñàkk fi jaar pour ñëw di ko xool si ñoom warul nekk à ba bàyyi ñu fekk ñu bàyyi ñu si nooteel kon ñu ngi def appel pour ni ñoom ñoom ñu war nañ mën a ñëw taxaw si parce que yëg nañ ko parce que am loo xam ne loo bokk kenn warul xaar du la koy yëgal yëg nañ lu mel nii waaw coono ak lu mu sonn sonn lu nit ki sonn sonn sonn sonn boo ko ñëwee da daan ñu ko massa sax dina wàññi coonoom waaye boobaak léegi gisuñu kenn wax dëgg yàlla sunu kenn. waaw ñu dimbali nag lu ñu xam ci ñun daal ñu jéem cee taxaw. taxaw nañ ci yàkkamti nañ ci bëggatuñu fi dara fanaan fi sax bëggatuñu ko fanaan fii soxlaatuñu ko nañu dimbali te yàlla rek tax ñu dimbali ñu te yàlla rek tax yëkkatuñu tey fii kuñ fi tëbloo dañu di nga rey nit parce ay xale la ñuy yor suñu doom yi xamuñu dara nañu dimbali rek te yàlla rek tax ñu jigéen ñi dañoo sonn sunu góor ñi dañoo sonn ñu jàppale te yàlla rek tax dimbali ñu ngir yàlla war a suuli ñu yëkkatu yëkkatuñu fii Macky Sall dimbali ñu ngir yàlla rek nga xool li ngay def ndax say fu ñuy dem tey ak vol la ñuy jël ñun amuñu sax vol nañu dimbali rek te yàlla tax. Covid 19 ñu gën koo xam ci coronavirus nekk ab jàngoro bu doy waar jamono jii te bàyyeekoo foofu ci Chine ñu nemmeeku fii ci Sénégal ñeent ñu ci amee jàngoro ji mu jur njaqare ak tiitaange ci askan gi yépp ba tax ñenn ci ñoom di si àddu. ba ñu déggee ne jàngoro am na ci benn dëkk rek lañ waroon a mën a jël suñu matuwaay bu baax. jéem a xool frontière yi ñu ko jéem a mën a sécurité ba teg ay matuwaay ay médecin taxaw kuy dugg kuy génn yëpp ñu mën koo gis waaye nag comme nee nañ ñoo feeñee Sénégal man nag gisaguma ko xamaguma nu mu mel te yàlla bu ma ko xam te yàlla bu ko keneen xam te yàlla bu yàlla na ko yàlla saafaral jëlee ko ci Sénégal comprends na loolu nag moo nekk loo xam ne ne tey jii état bi war nañ cee jël seen matuwaay bu baax te xam ne am na yoo xam ne bu ñu ko déggatee rek nañ jël seen matuwaay taxawu ci est-ce taxaw na ah jàngoro kat am na fi comme ni ñu déggee woon Ebola mu amoon Guinée ni ñu jëlee woon seen matuwaay taxaw ci yaa ngi dégg kon comme nee nañ dugg nañ Sénégal yàlla na ko yàlla saafaraal. ñu jëlee gën a jël seen précaution daal frontières yi gars yi jéem a xam nuñ koy jéem a tëjee daal boo xam mais c'est que nag gars yi dama xaw complexe quoi ci tubaab bi looloo tax instant feebar bi cas yi di gën a bëri ak gars yi dañoo complexe ci tubaab bi trop. ute nañoo waa Mauritanie waa Mauritanie ñoo moom ñu ngi tëj seen frontière moom normal déggu goo fa benn cas mais es bi moom chaque jour boo xëyee moom fii moom yaa ngi dégg cas ñu ngi gën a bëri nii nii nit ñi nañu bàyyee xel nañu bàyyee xel bàyyee xel te wax ci bañ leen yóbbu respecter yi ñu joxe c'est très important loolu rek moo leen si mën génn leneen lu ñu defaat lu loolu lañuy sonal seen bopp bu ñu topp topp euphorie euphorie euphorie bi. on parle coronavirus coronavirus fii Afrique ñëpp nañ xam nañ ne on vit en communauté parce que dajalo dañuy dajaloo tout le temps événement yaa ngi am ngénte yi tudd yi cant yi gàmm yi ñoo ngi am mais il suffit ñu respecter recommandation yi yàlla dañuy dimbali. waaw jàngoro bu bees bi tam moom lëmbe na dëkk bi lëmbe na dëkk bi daal ñëpp tiit nañu. kenn taxawatul kenn toogatul ñëpp tiit daal ñëpp tiit waaw waaye sant yàlla rek waaw sant yàlla ñu teey régler di set boole ci set set nan daan sete mu gën a yokk di farlu ci ordi sevel bi madaar bi raxas say loxo defal sa kër ba mu set daal te xool fi ngay dox ak di xool fi ngay dugg parce que yëfi daal tiital na nit ñi daal tiital na nit ñi trop waaw waaye daa ñu ànd ak dal te gëm yàlla tey set na set gi daa gën a yokk ku ci wàcc dina la dama raxasu ji saabu ak eau de javel nit ñi jaay tamit ñu ngi farlu ci suñuy bi eau di si tax suñuy biteel ak ñi ne ci waañ yi ñu teg suñu eau de javel doon nañ set nag waaye dafa gën a yokk ndax mbir mi tiital nañu yëpp dañuy sol suñu masque bu ñuy génn nag bu ñuy génn moom dañuy sol suñu masque waaye bu dee fii ci suñu fii nii gisuñu kenn ko ko fi am dañuy dalal suñu xel ñuy génn dañuy sol suñu masque bu nu amul masque nu jël suñuy musóor ngalab suñuy gémmañ ndax jamono neexu coronavirus de Abdjang jàngoro bu ci réewu Chine té ñu pi woon ñenti cas fi ci réewu Sénégal fi mu toll ni nak benn cas bi faj nañu ko ba mu wér waaye terewul ba légui askan wi ñu ngi koy waxtaanee ndax fièvre bi ni mu doyé wa docteur Diakhaté di médecin chef bu centre de santé anne Mariste. pour commencer dama bëgg dé le début ñu wax ni coronavirus du virus boo xamné bu bees virus boo xamné ne na am ci dëkk bi ci dëkk yépp. waaye bi am at bi moo gën a soxor yi doon am bu njëkk ba mooy comme su ñuy wax grippe yaa gën a am grippe moom ku nekk mën na grippe virus bi at bu nekk nag virus bi day changé virus bi ngay gis tey soo demee déwén beneen façon virus ngay gis léegi nag bés mën nga tombé ci virus boo xam ne moo gën a soxor yeneen lool nag moo am ren Chine la jëkk dañ ko jëkk gis chine ci benn marché ko marché yi am fi rek waaye ñoom dafa am xeetu lekk yoo xam ne moom la ñuy def yoo xam ne utee na ak ñeneen ñi di def am na benn mala bu ñuy wax ci tubaab pagolin après dinañu won photo bi fi ci foofu seetlu yi ñu def yëpp foofu la ñuy gis ni foofu la njëkk soqe ko maanaam ñi ko doon jaay ci marché bi ak ñi ko doon jënd ñooñu lañ ko njëkk a gis ñooñu ñoo njëkk a génne feebar boobu léegi nit wax xalaatoon nañu ay njugub ak yooyu waaye njugub du ko joxe xeetu mala boobu daal moom la ñu seetu ni moom moo ko njëkk indi ci dëkk boobu di Chine léegi ci boobu ci marché boobu buñ ko njëkkee am foofu dañu gis nit ñi ñoo koy wàll yeneen nit ñi nit moo ko mën a wàll nit mais balaa ngay wax wàll da ngay wax feebar bi naka lay feeñee ci nit waaw mooy li ñuy wax symptôme maanaam nit ku am feebar boobu sooy seet signe muy am moom ak siiñu feebar yu bari ñoo bokk nit ki bopp bi day metti nit ki yaram bi day metti nit ki day saqat yenn saay nit ki soj mais c'est pas obligatoire mais bopp buy metti bi yaram bi tàng yaram bi metti muy tëqat ànd ak yenn forme yu sévère yi mooy dënn buy metti maanaam day am infection ci dënn bi ba yenn saa yi mën na sooxe noyyi bi loolu moo tax ñu ne feebar bi mu soxor parce que day dem ba jàpp sa ñenn ñi su demee ba jàpp seen su ñu amul trop possibilité dañuy mujj di leen yóbbu hôpital di leen def réanimation te ñi ñu seetlu ni mooy yooyu mooy gën a indi déchets yi maanaam ñu gaañ yi ñu ñu gën gis ñëpp mooy dañuy dem ba am infection ci dënn bi mu dem ba sonnal leen ba dootuñu mën ñooñu la ñuy gën nit ñuy gaañ yi waaw léegi feebar bi noonu lay demee wàll bi tamit fu muy jaaree le plus souvent ñaar la benn bi mooy bakken bi nit ki di ñandu liy génn ci bakken bi loolu day wàll ñaar bi mooy nit ki di sëqët sooy sëqët da am ay tëflit yu ndaw yoo xam ne yenn saa yi doo ko gis mais sooy sëqat yooyu mooy génn yooyu mooy wàlle encore ñaari fois yooyu ñooy wàll nit ki léegi sëqat du foo sëqatee rek mu nekk maanaam su ñuy wax wàll bi il faut nit ki jege la maanaam mën naa toog nii kenn nekk fële juróomi mètre si man ma sëqat sëqat bi du yegg ba si moom donc amul benn sens mu wàll bi pour muy wal nit ki fokk nit ki jege motax dañ nane contact rapproché manam nga djegé nit ki ben mètre wala maximum ñaari mètre su boba bi ak bi mën na la wal wara nit ki sëqët ak si loxom mu pare nga ñew mu nuy la si saa yow nga jël sa loxo teg ko sa kenn wala sa gémmiñ mën na la wal ñettel bi nit ki mën na loxom tamit japp buntu porte wara japp ben ki yow nga jaaraat foofu mais jaar bi il mu gaaw maanaam su ko defee léegi si 30 minutes yi nga jaar foofu nga laal ci boobu mën na la wàll tamit yooyu mooy wàll yi. ginnaaw loolu nag moom docteur Diakhaté moo ngi ñaxaaskan wi ñu topp yile tegtal ngir mën a mucc ci bile jàngoro. première mesure bi ñuy wax nii mooy dee leen raxas seen loxo heure bu nekk raxasal sa loxo ndox saabu. soxlawul jël ay eau de ay vinaigre ay kii ak yooyu ndox saabu nga raxas sa loxo ba mu set mooy première mesure de prévention bi mooy mooy nit ki soo feebaree maanaam ngay sëqët sa dënn di métti sa yaram di tàng sa bopp di métti xamal ni signes yooyu day alerte mais ça veut pas dire que am nga parce que yooyu il faut mu am yi nga koy booleel soo amee loolu ak voyager maanaam nga dem ci dëkk yoo xam ne am na feebar boobu loolu mën nga xalaat ni mën na nekk loolu nga dem def consultation waa ilaa nga nekk ci kër boo xam ne am na ku am feebar boobu yow nga commencé am si yooyu mën nga xalaat ni feebar bi am nga ko def te su boobaa lu ñuy njëkk a laaj mooy nit ki dem consultation hmm? ñetteel bi li ñuy wax mooy transmission interhumaine rapprochée maanaam nit ñi jegewoo donc moy tax ñu naan mbooloo rassemblement yenn réunion yi période bii dañ ko mënee moytu jëm ko moytu gone yu Sénégal yi dañoo daal di daan équipe bu Tunisie mi nekkoon tenant de titre ci benn bal ci dara bii bi ki ko dugal di Samba Diallo ci fàttali gone Youssouf Dabo yi ay invité lañu woon ñeel bi les compétitions ñu ngi déjà di jaajëfal mbokki internet yi di leen jox dig semaine prochaine suñu beneen journal de la semaine